a ah, fi ñu toll la daan am fii de gisaguma ko ren la daan am fii gisaguma ko ren ndax amoon na jamono bu ma commencé dale jaay fii ak léegi boobu moom fi ñu nekk ni ci kanalu Gueule Tapée bi Aba Ndaw la commencé monument ba ngay dem Soumbédioune lépp da doon fees fi ñu toll nag fi ma fi ma fi yem moom mbaar yi sax daawuñ nekk fi waaye fi ñu toll moom li ma fi gis ren moom daaw ma ko wax dëgg daaw daaw na ëpp noonu moom waaw kon ren moom taxu koo bari di saase nag bariwul waaye nag xar yi dañoo mënta ñàkk a seer ndax xar yar yi ah, xont bi dafa seer boo jéggi na dayoo waaw ndax xont bi boo xam ne saako koraay yaa ngi koy jëndee ay seize mille cinq cent saako jaar nga ko jëndee ay quatorze mille. Ah, coox bi nga jënd ko ay ay onze mille cinq cent waaw te boo wala ngaa dem quinze jours mu jeexaat nga demaat quinze jours boo ci bëggee daal lu war a def six mois sept mois xam nga une fois moom ku la ne maanaam du seer une fois mu seer waaw et ba ñu telee jaay fii ak léegi nag xam naa ne moom li commencé daaw ak ren moom xont moom ñu mel noonu mosul mel noonu moom mosutam mosutam waaye diggante daaw ak ren moom xont moom normalement dafa seer ba jéggi dayo waaw waaw am na par benn benn yu jënd waaye nag am na par benn benn yoo xam ne dañu ñëw waxaale rek demaat mais loolu nag fiñ ko moon a baase mooy dañoo xalaat ne maanaam mën nga am foo xam ne mën nga jënd xar am foo ko dugal mën nga am xar doo mën foo foo ko dugal te it mën nga koo jënd doo mën a am xont boo joxe yaakaar naa ne xëy na loolu moo tax njeen mi xaw a yeex te xam nga comme daanaka wéeru moom mën naa ne ci weeru tabaski defe naa tey la benn fan. ma xalaat ne looloo tax gars yi dañuy yër di dem di waxaal di dem di ñëw dem di ñëw waaw xam ñu nag bu na ñoo mën a xam ni muy demee daal ñu dem boo fin bu jeexee ñu xam ne jeex na bu jeexul it ñu xam ne jeexul waaye fi ñu toll nii moom njaay moom amagul solo maanaam moom wàññi xar yi moom maanaam maanaam boo nekkoon ba tabak bi nekk suba yi itam xar yi moom ku la wax ne mën naa koo wàññi mënul nekk ndax xam naa ne xar xar boo gis ak pari bu mën a jar waaye nag pari bu ma mën a jar mënoo ca am am am bénéfice maanaam boo am ci loo xamante ni moom mën nga cee gis sa bopp moom déedéet ndax loolu moom xaalis moom du ko attan ndax fi ñu toll suma su ma la nee man si wàllu bopp fa nekk nii su ma la nee fii ma commencé ak léegi def naa des cent cinquante mille ci xont rek bokkul ak yi may foraatu ci bokkul doo doo ko gëpp mais xar yoo xam ne nii daanaka amoo ngoon boo demee jor xay xar ba mu am noo xam mel na noonu rek war ngaa xam ne xar bi moom normalement am na lu mu lekk waaw boobu na tey tey tey tey tey li ñu waroon tax ñu mën a jaay ba mën a am daal bu doon jaay ay deux cent cinquante mille trois cent mille jëm kaw d' accord nga xam ne mën nga ci am xar mu ne xëy na mën nga am ay juróomi junni ay juróom-ñaar junni ay ñeenti junni ay ñeenti junni waaye loolu mënoo koo nekk boo jaayee xar tey mën ngaa jaaye xar deux cent mille mën ngaa xalaat ne maanaam xar bi su ma génnee cent francs ba mu jeex tak su ma ci amee su ma ci su ma ci amee junni mbaa ma am ci juróomi téeméer juróom benn téeméer sax bëri na ba waaye nag dafa tolook nag maanaam mën nañoo wax ne mun denc dencukaay xaalis la ndax xaalis it dafa jafe dafa jafe dafa jafe denc booy foraatu di ci def itam amaana mën nga am benn bés mën nga am benn bés xëj na loolu global mën a mën a fekk nga mën cee def sa dara mën cee def dara waaye fi ñu toll moom pour nga gis sa bopp moom yombul le fi mu nekk nii moom fi mu nekk nii moom sunu jafe-jafe daal moom xam naa ne duñu lew moom waaw du ñu nelaw de waaye nag gisuñu dara nag loo xam ne mën nañoo wax ne amul sécurité ndax léeg-léeg nag gars jaar ñu xalaat ne xëy ne dañoo def kaaraange li ñu wér waaye nag wax dëgg waaye amuñu fi jafe de moom wax dëgg naa la xan nag sàmm moom du nelew <laughs> sàmm moom moonte nelew moom comme dañuy sàmm moom mënuñoo nelew waaye nag gisuma leen loo xam ne ñoo ni xatal nu fii mbaa mu def fii dara moom amul to it macha allah ñi nga xam ne ñooy borom kër yi nga xam ne ñoo dek fii itam Ah, am nañu jërëjëf ndaxte wax dëgg yaatu ñu baax nañu borom place yi itam ñi nga xam moo kii ak wax dëgg yàlla alhamdulilah ñu sant leen bu baax ndax xam ñu ne ñun ñëpp a bokk Sénégal te dañuy wut rek wax dëgg jàmm fi am waaw tax borom kër goo fi soxla boo demee ci këram sax boo soxlaa dem ba nag ngay dem foofu bëgg a sangu nga mu jox la nga sangu ñene sax am loo xam ne lay laaj na sa yére bu tilmee sax nga ñëw ma footal la xam nga loolu lépp am jàmm la ak bëgg Sénégal wax dëgg yàlla ñuy góorgóorlu bu baax moom ci jafe benn jafe-jafe wax dëgg yàlla suñu jafe-jafe daal mooy xonte bu seer yaa ngi may de xëy na daal loolu mooy gën a daal suñu suñu suñu kii daal suñu jafe-jafe daal mooy loolu te xonte bi moom daanaka boo ko xoolee fii la tànnee sax ndakaaw la tànnee baaliye bi baali bi la gën a seer moom fuuf sax waaw fii fii de moom jëndaguma fi waaye li ma jënd bi ma ñëw daal maa ngi ko jënde maa ngi jënde koraay seize mille cinq cent maa ngi jënde jarga quatorze mille francs maa ngi jëndee ripaasu ceeb bi maa ngi ko jëndee onze mille cinq cent li ma jënd bi may ñëw saako ngooñ yaa ngi koy jëndee six mille franc cinq mille franc waaw loolu daal gis naa ko bi ma ñëw mais nag fii moom jëndaguma ndax li ma indi woon jeexagul des na tuuti waaye des na tuuti nag ma xam lan lay jar fii ndax li li ma yor lee mu jeex ma mën a wuuti waaw. xar xar am am na waaye daana ëpp nii moom waaw. jafe-jafe yi mooy nit ñi wóolu wuñu pour affaire yi jàll. maanaam affaire garab yi jàll moo tax nit ñi ñemewuñu manifestation bi waaw moo tax ñu bari ñemewuñu ñëw waaw ak it xar daa seer li nga mënoon am comme ça par exemple boo doon indi ay 40 yaa ngi indi ay we fi mu nekk nii parce que dafa seer to xaalis génnut pour nga war a am loo jënde waaw moom ça dépend am na 150 daal la commencé jëm kaw ba 200 250 ah boobu récolte mooy àdduna bi jafe-jafe bi bari daa bari rek xont bi seer na jur yi kiwuñu bareetu clients yi léeg-léeg ñu ñëw nag maay may ah, gu ñu nag mais dañu ñëw par par waxaal ñii dañu ñëw jën par benn ñii di waxaale di dem waaw ñu ngi gis ay clients moom ñuy ñëw moom maanaam coono bi moom xanaa moom da jur moo moo naqara yow rek waaye coono beneen coono moom amu ci moom xont beeg wog beeg sang yeeg yooyu yëpp mooy coono bi fere bi ba saako ripaas mu ngi jar mu ngi jar euh, douze mille courant bi mu ngi jar euh, seize mille seize mil cinq cent xam nga loolu yëpp boo ko boolee day day day seer ak njëgu xar yi waaw sécurité bi moom moom na dem na ba ci wàllu place yi parce que boo ñëwee am na ñuy taxaw fii naan dangay dangay joxe na waaye man moom saa su ma ñëwee du ma joxe dara damay damay risque rek ndax euh, nguur gi ñun la àndal ci waru njaay xaar yi nee na bu tabaski desul bu desee lu fukki fan rek jaay xaar mooy priorité ci canal bi. maanaam njaay mi nag bala moo kii dëgg dañoo dem ba mu des ñaari fan ñatt euh, benn maanaam comme ça fi mu ne nii tabaski alxames lay doon alarba daal la njën mi kii ci guddi. man loolu dama koy bañ de parce que boo boo am na ñoon buñ la ko defee da ngay war a ñibbi doo mën a ñoo buñ la defee da ngay joxe date. bi ngay jël ñëwaat boo ñëwut ma jaay ma jaayaat waaw moo xam ngóor gi de moom mu dimbale ci wàllu ripaas bi la ndax ndax daaw ñëwoon nañu indi ripaas waaye dañ ñëwaguñu xam ma lu tax indi woon nañu ripaas jaay si boo si boo nañ ko daaw di ko jaay saako bi cinq mille deux cent arrangé woon nañu lool daaw moom wax dëgg waaye ren ji gisaguñu leen